Everywhere.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 nee ñu nii la demee commissariat Parcelles Assainies bu unité 15 dañoo jot alerte bu leen di xamal ne le 23 février bi weesu ci booru 19 heures 56 minutes ab waaju tàggo xelam moo jam yaayam ak maamam bu jigéen fële ci aslem Grand Médine ba noppi xaru naka noonu ci la ñu demee ci béréb bi gis ne waa ji tàggo xelam ci suuf waa ji xelam nag mu ngi wuyoo ci turu MNDD ñu ngi ko fekk ndeysaan ci buntu immeuble R plus 2 bi mu tëdd ñàkk bakkanam yaayam bi mu jam nag mu ngi wuyoo ci turu AND maam ji mu jam di wuyoo ci turu MD ñoom ñëpp fi mu ne évacué nañ leen ci l'hôpital principal waa ji tàggo xelam nag nee ñu bi mu defee njombe loolu yaayam ak maamam dafa tebee ci terrasse bi dal ci suuf mujj ñàkk bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fami bay wax de ndax ndax nee ñu waa ji entré nañ ko hôpital psychiatrique bu Thiaroye ay yoon yoon police tamit bi mu yegee ci kaw ci deuxième étage bi fekk nañ fa ay trace de sang cay mim réew ma ne nag réew mi genre accident yi mën na fee ndax réew moo xam ne politique des malades mentaux dafa mel ni bokkul ci seen programme réew moo xam ni mënoo dox ci mbedd mi ñaari pa te dajawoo ak ku tàggoo xelam ñu nekk ci peuple bi peuple tamit nekk danger ci seen kaw ba noppi it biir kër yi fees della ak ñu tàggoog seeni xel te yenn saa yi seeni yëngu-yëngu dafay mujj dépassé te waa kër ga duñ ci am pexe <laughs> moo tax ma ne yu ni mel du fi gaaw a jóg de moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona laa wax la xew ca buun doy na waar ab waay daal lañ fo doon agressé jël portable am naka noonu ci la jàppante ak agresseur yi ba këf portable benn agresseur bi yi ñaw dal di daw ak moom gaay topp ko ba sonn mujj ñu ko jot <laughs> ma ne am ngeen problème de waa ji ñu doon agressé mu ngi wuyoo ci turu deebee moom daal ñeenti waxambaane ñoko ko dab guddi di koy agressé nangu portable technospat ad bi mu yoroon naka noonu ci jàppante bi mu doon jàppante ak agresseur yi ci la këfee benn portable agresseur bi dal di daw agresseur yi topp ko waaye sa waay may gaay mujj ko koo jot ma ne ko waaw góore waay sawaay nag portable agresseur boobu mu jël ci la ko yóbboo ca commissariat bu yëmbal comico ba noppi daal di déposer plainte contre x ma ne ti ko waaw góore waay naka noonu nag ci la élément commissaire ci Ahmed Tidiane Diallo yi exploité téléphone bi ba teg loxo ab étudiant <laughs> waaw étudiant buy agressé étudiant bi mu ngi wuyoo ci turu M Dieng Aba di ab soi-disant Boucher Aba Boucher moomu sax nee nañ biñ koy teg loxo ñu ko fekkee ak yamba waaye ma ne yan yi kuulisin munu ko étudiant agresseur bi di wuyoo M Dieng nag moom la ñu njëkk a teg loxo naka noonu ci la daanelee ña ca des cay mim réew gannaaw ba ñu leen defee garde à vue nag étudiant bi ak Boucher bi présenté nañu leen procureur Pikine Guédiawaye fi mu ne ñu ngi leen di toppee li tubaab naan association de malfaiteurs vol avec violence commis la nuit moo tax ma ne yéen am ngeen problème de doon sàcc ba ñu sàcc sa portable daane la ci waay waay waay waay yàlla mën moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax kii nag ak xale bu jigéen la am fukki at ak juróom-ñett xale bu jigéen boobu nag mu ngi wuyoo ci turu AS xale bi nag dafa ëmb law bi mu ëmbee nag mu dem xamal ko far wi waaye far wi lànk ba tëdd ci naaj bi ne du moom ndax xale bu jigéen bi yemul won ci moom waay waay xoolal ma lii rek cey mim réew naka noonu nag ci la xale bu jigéen bi demee ca commissariat bu Médina déposé fa plainte am di toppee waa ji refus de paternité waa ji nag nee moom sax bañul waaye nag lii tax mu nangu ëmb bi mooy ñu def ay test ADN waaye ma réew mee neex réew moo xam ne xale yi xam nañ lu ne lu ne la xale yi xam lu ne lu ne lu ne lu ne moo tax yenn yi ay bàyyil ma noppi mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi